naafila set guddi juróom ñaareel gi ci weeru koor sopp nañ ko ci julli juróom benni rakka rakka bu ci nekk mu jàng faatiha benn yoon jàng juróom ñaari xul yaa ayyuhal kaafiruun jàng juróom ñaari xul huwallaahu ahad aaya ju ci nekk des na ko ca bindal aw yiw te dana mel ni itam ku saraxe junniy dinaar te lu mu ñaan yàlla suñu boroom mu may ko ko te des na ko bindal itam tuyaaba ju toll ne limu bi ci àdduna bi yépp xaraf bu ci nekk des na ko ca tabaxal pale bu rëy ca àjjana xarit yi ku ci bëgg yeneen leeral nga dellu ci Xurratu Ayni bu Sëriñ Shay bu Mbàkke page